salaamaaleykum internetu Sénégal ñu am mbégte dalal fii El Hadj Assane Gueye ku ñu dootul présenté journaliste bu mag boo xam ne nit ñi dañ koy bàyyi xel chaque matin 8 heures wala 9 heures <laughs> moom la ñuy déglu ci ci actualité si santé bi surtout tey ñu ñëw dalal ko fii nag di waxtaane gàmmu ak actualité maa ngi lay bàyyi nga nuyoog internet yi ñuy seetaan. jërëjëf soxna Aïda maa ngi lay gërëm bu baax di la sant di ziar d' abord waa Sénégal vraiment di am mbégte. siq ak yéen waxtaan ndax Sénégal ak ay wóllëre yu ma fa am <laughs> commencé ko ci sama sekkee ni El Malick di ko ziar bu baax euh, Abdoulaye Seck ak euh, vraiment toute l' équipe di leen féliciter ci liggéey bu am solo bi ngeen di def donc di nuyu seen internet yëpp vraiment di leen ziar di leen ñaanal jàmm di am mbégte siq ak yow waxtaan ay la euh, depuis sant yàlla sant yàlla ndax corona bi mu nuyoo Sénégal. waa kër docteur ñoom xamoon nañ ne ay jàmbaar lañu mën nañ seen liggéey donc problème bi ñu amoon c'est au niveau de la communauté il fa une réponse communautaire ci ñun suñu wareef bu weesoo bégal nit ñi boo weesoo jàngal nit ñi yee nit ñi et cetera loolu da cee bokk maanaam sur le plan communautaire ñu fexe ba nit ñi ñu xamal leen ni xeex bi c'est à votre niveau donc combat bi foofu la woon ca sant yàlla tey bi ñu demee ba naan ay 2 cas wala 4 cas donc remercier d'abord les autorités de ce pays ndax ni ñu anticiper ak les mesures euh, qu'elles ont prises remercier le personnel médical surtout amuñ seen pays Sénégal kër docteur ndax wax dëgg yàlla ñoom it euh, euh, dékku nañ mbir mi waaye sant suñu borom mi nga xam ne may nañu donte nag def na fi ay tiis yu bari wax dëgg yàlla euh, ñi faatu bari na ñi mu tëral bari na mais mënoon na fee gën a ñaaw kon duñ def lu may sant yàlla deux ans bu doon dix ans it on n'a pas le choix ñun suñu liggéey ci njëlbeen nañ ko def mission pour man sacerdoce la donc lépp luy njariñu réew mi rek dañ cey taxaw ndax ba ñu duggee ci métier bi naam benn ñaar ñu ne nañ ko defee ci wolof ak kàllaama réew mi bañ ko defee ci yeneen kàllaama c'était pour que ce droit à l'information bu askan bi am ñu koy jëfandikoo euh, di am un regard ci gestion de la cité donc euh, corona ak leneen na ci yem lu ci euh, mën a soxal réew mi rek ca mu laaj ko dañ cey taxaw vraiment ca duñ ci leble bor duñ ci fayeku bor nag waaw que dafa xam nit ñi xamul woon ci corona non parce que dama xamoon ni Sénégal àttanul loolu Sénégal àttanul sax euh, maladie bu gën a néew corona waxuma la ak mbas moo xam ne àddina yëpp ku ne xam nga lam fi def ci ci loraange je savais que ni li ci kanam du baax ca bi virus delta bi feeñee variant bi. Euh, war nañu ko mais ba tey sant yàlla rek parce que moo na fi gën a ñaaw mais je savais que plateau technique yi nu am l'hôpital yi nu am attanu lu ni mel ku ku raw Sénégal sax attanu ko donc c' est ce message là la bëggoon mu dugg ci nopp nit ñi mais pas rek dama cee jógte woon di leen sonal chaque matin corona corona wala toog leen seen kër yi dégg nañ ci lu ne comme dégg nañ ci félicitation yu ne mais lépp rek comme je te dis ñun fayuñ ci bor fayeekuñ ci bor man mbir su ma koy def day doon wareef rek su ma ko jógee dem tëdd nelaw

li kër docteur ak xam-xam waxoon ca njëlbeen mooy ñu moytu dajaloo yeeg nangam nangam di sol ay masque loolu ku ne xam nga ni si le plan scientifique c'était vérifié que moo doon saafara bi mais Sénégal am ay réalité am ay kilifa am ay tarixa ah n'est-ce am ay ngëm-ngëm te loolu it euh, defe naa ni dafa am solo euh, loolu moo tabax réew mi loolu mënee su ko teg ca ginnaaw di indi leneen il fallait donc ñu daal di boole ñaar yi naka la ñuy def ba wàccoo ak kër docteur waaye wàccoo ak ndigali kilifa yi ci je pense que ba fii on a un peu réussi quand loo ci mënti dégg nag am na ñu jot a def xëy na borom bi def na yëf ya euh, jolleewu fa am na ñu deful ñu leen di gërëm di leen sant ci constance boobu waaye loo ci mënti dégg daal kilifa yi moom seen wax jëfe la sant ndax dama ko wax xale yi keroog ci rajo bi ndegam France gii rek nga mën a dem ab tubaab ne la euh, boo naanee kafe pot bi sànni ko ci fii nga wàccoog loola ne ndigal waxuma la ak ndigalu sunu sëriñ su baax si kon pour man ci gàttal nit day kilifa ndax man mosuma bëgg jinne doon sama kilifa kon kilifa yi lu ñu wax rek euh, ca it ñu toog nag toogin yoo xam ne ak di gis loo xam ne gisoo ko euh, ak doxale euh, du ca dara. gis nag ñu bëri di commenté décision xalifa. nan nga gisee commentaire yooyu noonu nga xam ne yu négatif la jëmale pratiquement aw ci gis-gis. parce que aussi au moins leçon bu ma leen di jox waaye man de di taalibe wax dëgg yàlla parce que nit aussi da ngay cohérent ak sa toogaay da nga nekk taalibe am wasila am kilifa waaw kilifa googu nag déjà le nga doon taalibe rek nangu nga ni moo lay digal nangu nga ni moo lay joxoñ fi ngay jaar kon kilifa gi bu joxoñee rek yow tegu ci daal man pour man damay ñaan ñëpp daal ñu ñu am taalibe rek waaw loolu ci gàttal parce que nit nag boo lankee am kilifa di nga gis ñeneen ñu doon say kilifa. sa programme dañu gis événement religieux bu mhm. nit ñi bëgg problème réalité la rek quoi effectivement li nit ñi bëgg parce que nit ñi ay sénégalais lañ duñu ay français duñu ay allemand tey boo ne gàmmu ne màggal et cetera yi loolu la ñu xam ci yooyu la jokk kon nag booy def xibaar da nga koy dëppaleeg réalité réew ma nga waa réew ma ngay xibaar n'est-ce pas donc gàmmu munta am nga jëmee sa programme feneen. màggal mënta am nga jëmee sa programme feneen et cetera et cetera donc loolu rek la euh, te ñi koy def it ay sénégalais la ñu ah le journaliste il est il est musulman il est talibé de d'une confrérie donnée donc voilà euh, l'un dans l'autre comme je dis euh, mbir mi daal da koy dëppale ak réew ma nga ne Sénégal gi dafay am ay réalité yoo xam ni ku ko bëgg lank lànk gis it mu ngi mel ni nga ne gisuma asamaan rek waaye daa fekk téenoo mm. Mm. yaay ñu mhm. euh, ni ma jàppee ni noonu lañ ko war a màggale d'abord cest à diine du du du lu ñuy fësal diine li may wax sànn ne s'extériorise pas waaw ku ne ni nga koy dundale ci sab xol ndax yonent bi moom boo ko waxee rek wax nga lépp kii nu gën gën sunuy jur foog naa ne bu ñu koy màggal nu ko waaye màggalee ca mu doon lu sell dëppook euh, lu diine nangu rek ay ca doyul donc euh, amu ci lu ñuy digle wala fu ñu ca war a yem waaw ku ci mën a dem ba jeex ci màggal gi waaye jublu ci lu baax jublu ci di di di di topp fexe topp ay tànkam jublu ci di di di roy ay doxalinam ak di di vraiment dundal jikkoom loolu moom noo ko màggalee ci anam yu sell rek doyul. bon généralement xam nga daf ñu fekk at yu bari ñu nekk ay responsable donc yow boo ñëwee en tant que responsable ni ngay taxawee ci ginnaaw du bokk ak kii def reportage bi et cetera donc je le dis vraiment ak euh, en toute humilité waaw parfois da ngay fekk xale yu dynamique yoo xam ne ñoom lañ dénk yooyu ñu ne ci terrain bi yow nag di nga ñëw ngir ak njabootee di nga ñëw ngir ak may gët et cetera euh, voilà pour pousser derrière mais comme je te dis rek gàmmu daal. moo xam bërëb ba nga jokk moo xam sa kër moo xam feneen ku ne xam nga ni gàmm ngir Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa naa ne bis bu ne la euh, minute bu ne la waxtu bu ne la waaw ndax ki gën ci ñun ba pare gën jikkoo ci ñun kooku dafa naa pour màggal ko ci ci ci saa yu ne la war a doon nit ki da nga war a fexe ba yow li nga ni moom ngay woote nga nuru ko ci sa doxin ci sa toogin ci sa waxin waaw ñu jël benn exemple maam Abdou Aziz Sy Dabakh da mhm. euh, dafa naan nag waxtaan ak mooy soog a neex parce que ki nga tudd. Mm. dabaax Malick di sama aussi la macha allah kooku moom du ma ni rek dama ko sopp yam ca ndax Sénégal boo dee sopp Dabakh am na ñoo dañ gënoonu koo sopp. waaye yàlla def na bëgg naa ko lool yàlla def na njabootam it bëgg nañ ma lool ah rawatina euh, taawam bu tedd bi sëriñ Maodo si da baax mi nga xam ni moom ma jox wird di sama soppe di sama di sama sëriñ macha allah kon bëgg naa lool ci waxtaane ko moom ku tedd ki euh, maam Abdou nag moom ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci jikko ci toogin ci waxin ci doxalin loolu rek dafa naa ni tëj na waxtaan wi ca da ko doon wane nag moom yemu ci di ko wax dafa dafa dafa séddoon boppam askan wi ku dem ba naan moo leenoon sama jëmm ji dina mun na fees safara ba kenn du fa dugg ko loolu rek jeexal nay wax ci ci ci ci ci générosité gi ci vraiment fonk doomu aadama ci humanisme gi n'est-ce pas moo tax tey jii euh, yàlla tam du juum ndax noonu meloon ci askan wi moo tax ñu delloo ko ko tey ba ay ati at ginnaaw ak làqoom tey jii ni ko gars yi waxee maam Abdou ci xol yi lañ ko denc dencuñ ko suuf saa yu bis bi ñëwee rek nga gis mu mel ni euh, démb la woon je pense que ni kooku duñu ko fàtte. wax nga ay message am mais man am na ci bu ma gën a bu ma gën a marqué mooy bi ñuy denc Lamine Gueye fii Ndakaaru ak le message qu'il donnait aux députés boo dee député wax nga ministre wax nga président wax nga directeur de radio directeur de société ak responsable bu mu mën a doon nga xam sa responsabilité ca loolu moom loolu leen fàttali que nii saay bu sa alal bari ba nga foog nii dafa lay rendre éternel nit ku ne ni nga juddoo ñëw ci àddina ji xamul lu fi indi nag ñun ñëpp nag kenn xamul foo jaar dangaa ñëw rek après xëy na bi nga gémmee et cetera booy dem it doo xam fooy jaar nag te doo xam kañ la ak nu sa alal toll toll ça ne te rend pas éternel bis di nga di nga làqu nu sa taar toll nu sa ndomba tànk toll et cetera ca nag doo làqu yem ca après nag yaa le moment de la reddition des comptes foog nga rendre compte il faut que nit ñi seen wàllu bopp ñu def loolu ci seen xel yi que ni bis di nga wéet ak sa borom ba foog ne yow rek la sàkkoon mais loolu aussi il faut pas ñu yem ci discours yi il faut ñu koy doxalee il faut nit ñi gëm yàlla tegaat nit ci suuf ci xam ni nit mënut te weesu doomu aadama mais sénégalais daf lay déifier sénégalais moo lay yóbbu place yàlla moo lay yóbbu place nangam nangam ci ndax rek matérialisme te loolu sax déjà xam naa ne bis Sénégal war nañ ko waxtaanee wàcce matérialisme bi wàcce waat baar bi ba nga xamante ni penc mi. ñi ci jàppee seen bopp ñu ni exclure dootuñu demee ba duy xaru di jël gaal di dem parce que foog nañ ne tey ku yorul dara tekki woo sénégalais bu la taggee rek parce que da ngay maye taggu la ci sa jikko taggu sa am diine taggu sa dëggu waaye moom de daa mën a joxe mais du ñëpp mën a joxe ku amul doo joxe nit joxe na lu gën xaalis ah nit tabax na ba fi nit jëmbat na garab ba fi nit joxe na xalaat ba fi boo xam ne sauvé na ay junni junni doomu aadama kon nit ci jikko la les valeurs euh, du ci xaalis du ci matérialisme te loolu lépp gisoon nañ ko ci maam Abdou ci woyof gi aussi ndax loolu tamit am njàngale fa lay tàmbalee nit boo oyoful nawloo nit ñi comme ni ko sang bu tër bi daa defee ak saaba yi mais mënoo jiite kenn lu mu yàgg-yàgg ci suuf nga jëm waaw. alors bu ñu jàllee hmm. message bi ngay <laughs> kooku dañ ko bàyyi ñi nga xam ne xëy na ñoo ñoo ne ca poste yu kawe waaye daal hmm. ci sama ab yi Sénégal war nañoo delloo si xel yi. ñu daal di doonaat ay sénégalais bëggante ga fi woon yenente jàmm gi ak wax jàmm ji fi woon lu ko mooy nag dafa am loo xamante ni sunu borom dina la suturaal mais ci kaw nga suturaal sa bopp réew mii li fi xew mois de mars dernier ci xaw tuut gaal gi daanu bu fekkee ni jëlewuñ ci benn leçon la prochaine sera la bonne mardi inch net li ma ko kenn mais aussi wax doo ko ragal mm-hmm. réew mi bis bu fi sàgganee ba violence jibati fi Euh, jooy dina jóge fu ko fu ñu ko yaakaarewul kon sa ay du yam ci bopp borom nag waaw kon yàlla nañu yàlla defal jàmm waaye euh, ndimbal la ca fekk loxol borom mhm. jàmm boo koy ñaan da koy doxe di ko waxe mhm. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal duñ jëlaat sa temps xam naa ne amoo jot mais li ko jot a am rek accordé nuñ ko te waxtaan bi am na solo euh, jërëjëf ñu ngi lay mais merci Aïda ça a été plaisir vraiment mhm. waxtaan ak yéen Sénégal <laughs> man nag dama tàmm di def ay laaj am ma ñu may laaj moo tax <laughs> mais vraiment mbégte laaj ci am parce que réew mi occasion bu waaye mën a am pour wax luy defar rek ak foo mën a féete mas naa toog antenne benn waaye woote kàddu askan wi ne dafa ñëw ba boori euh, Sandaga ci rond point bi am na benn kàmb gu ne foofu kii nii na nga ko moytu nangam nangam ma ne ko loolu nga def rek xamoo tiyaab bi nga ci am nit da ngay am njariñ nit da ngay di defar luy yàq nga bako bu njëkkaan sunu maam yi dañ daan gis lu bon sax fënatal say gët yam ci lu bon nga daal di dawale say gët waaye léegi say gët ngay jël yow def ko arme di wër lu bon pour mën koo feeñal kon xam nga ne àdduna buy tukki ci lañ ne mhm. yàlla ci yàlla yaa ngi jàppale jigéen ñuy xam ne dañuy xamuñu leen seen activité ak yooyu noonu dañuy mhm. boo xam ne danga leen di danga leen di jàppale pour ñu wax seen waa jigéen ñi nag moom je pense mhm. que ni réew mi sax bu ñu bëggee noppalu xam naa ne bis jigéen a koy jiite <laughs> non euh, il faut diir les choses comme telles góor ñi xam nga góor ànd naag njàmbaar mais dafa ànd ak euh, xëy na surestimation wu capacité personnelle nit doo taxaw ni maa mën yëf dañ koy mënandoo yàlla bindul koo xamante ni yaay mën lépp amul ci àddina jigéen ñi loo wax rek mbootaay la ñuy wax ñoo ngi booloo ñoo ngi GIE ñoom réflexe boobu ñu am ba pare nag téye kër yi nag jamono ji ñu nekk nii góor jigéen ñoo téye kër yi ñoom compagnie El Malick Seck bu ñu xëyee dem nañ seen yoon ñoom ñoo ngi xalaat bu ñu amee ñaareel ñetteel ñeenteel mais jigéen ñi ñooy dang-dang yi ñooy jël dàmb dàmb jën yi fajar ñoom ngay dajeel ci et cetera donc bravoure boobu ma gis ci ñoom benn ñaan na ñu qu'il fasse des émules par rapport ak seen moroom jigéen yenn yi foog ne àddina Facebook la maquillage euh, euh, def ba mu baax yoo xam tu perds assez de temps bis ñëw nga rëcc ko ñooñu nañ dem xool seen moroomu jigéen yooyu nga xam ne ay actrices de développement lañu góor ñi aussi bañ a am ak rëy genn gi jigéen boo gisee mu ne ci yoonu baax te vraiment di ñu éduquer njaboot gi taxawee nee na nii danga leen di encourager mais pas di def yoo xamante ni mun na tax ñu wàccee seen yoxo je pense que c'est vraiment les dames les sénégalais sont à encourager. d'accord hmm. jërëjëf.